salaamaaleykum euh, mokk internetu site Sénégo euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey ñu ngi fii ci euh, grande mosquée bu Dakar ci ndigalu imam mu may ñu ñu waxtaan ak équipe bi nga xam te ne nii ñoo nekk fii di liggéey ak moom ci biir jumaa ji. ajjuma bi passé mu am lu mu woote woon ne nañu ko defal jullit bi ñëw di julli si mu indi ñaar téeméer participation ci yu grande mosquée bi nekk fële ca Tivaouane. ñi ngi fi nag ak équipe bi nga xam ne ñoo ñoo daan ñoo dajale xaalis bi ñeneen ñi nekkoon ci sensibilisation bi bien que bi imaam waxee rek doyoon na sëkk waaye am na ñoo xam ne ñu ngi doon liggéey ci suuf di gën a feddali euh, di gën a dëgëral kàddu imaam léegi nag tey jii suñu borom dogal na ñu ngi fi ak ñoom ñu waxtaan ak ñoom collecte bi euh, naka la demee. asalaamaaleykum mbooloo mi Ousseynou Sow. ñoo nekk fii si jumaa ji ñu ngi leen di nuyu di leen ziara toogandoog sunu mbokk yi kii imam Madiop bi moo fi nekk di imaam si juróomi waxtu yu fële ba fa Diop bi moom mooy coordinateur jumaa ji ci lépp moom mooy coordinateur bi lépp li nga xam ne moom lañuy doxal imam moom la si teg si loxoom ñu àndandoog moom jàppale ko ci parce que lu ne équipe bu ne bu amul entraîneur day sooxe ku ne day doxe nu mu ko neexe Ibou Ngom mii ci SCAF bi la bokk saltige kenn mënu ko fay moom ndakaaru rek ko ñor ak diine gi kon ñu ngi dolli sant yàlla bu yoof ñu ngi dolli sant yàlla ci woote bi imaam woote woon muy ajjuma bi passé yenn saa yi nag dinaay dégg nit sax mu ne nag la ngeen ca yaakaaroon am nañ ko mën na ko suñu njort ëpp na ko li tax mooy woote ñu wuyu la rek moo matale te bi mu wootee rek ñëpp wuy si nañu def si seen alal def si seen xol ànd ak moom ci woote bi li tax mooy yàlla rek moo taxoon bu ko woote woon ngir boppam kenn du ko fi fekk parce que ku ne am nga ku la neex waaye lim ci jiital sunu borom nag néegu yàlla bi moo tax ñëpp wuy si bi ñëpp wuy see tamit am nañ ci loo xam ne vraiment am nañ ci yéene beneen ba si mooy bii dafa fees rek waaye jumaa ji li mu mot li ci ay jumaa kenn mënu la wax nu mu toll bi jumaa Tiwaawan bi commencé si lañu suspendre bu Gueule Tapée bi mais dañ doon def at ajjuma ñu laajal leen yóbbul leen chaque fin du mois ti ba léegi comme dañu ko arrêté ba léegi moom mooy jël li mu am di complété ñun liñ leen diggoon par kii jumaa ji finition bi fa des bu doon kër ga cinq mille lañ ko doon tabaxee li fa des pour mu pare matatul cinq cent am na benn sanc bu nekk fële kees sanc bu bees la amuñu woon jumaa bi ñuy ñëwee wax ko mu ne leen laaj dafa metti te jumaa ji mën na fees fukk rek joxe mu ne dem leen ngeen defar ay ticket ticket mille francs ticket cinq cent ticket cinq mille biñ ko indee tekk ci loxo bafa mii mu jox ma ko maa ko doon wecceeku ci biir jumaa ji ba mu daje ñu jël ko woo leen ñu ñëw ñu jox leen ko ñu compter quittance yi ba mu mat ñu jox leen ko mais ba ñu demee commencé rek nit ñi xam ne ñi commencé nañu léegi ña ngi cay julli am nañu jàkk parce que yooyu pas-pas moo nekk ci moom te ñun bi ñuy bi muy woote nii fekk na moom mu dugal trente quelque millions ci laaj bi ñuy laaj fii ak pinsi yi kon moom dafa taxaw ba noppi dooga wut ñoo xam ne pour ñu am ci yiw bi mu bi nga xam ne yaakaar nañ ko parce que yiw yàlla rek mooy mottali nangu ko mu ne nañu woote ku nekk def si dërëm. na trente yu ko jiitu. waaw yu ko jiitu. yu ko jiitu yoo xam ne fii la ko doon récolté ci mbimbar bi ak li mu moom di ko ci def ba mu toll foofu mu xeeb loolu ci yéenam mu ne nañu woo ñëpp. ñi fi jullee ci ku nekk indi 1000 francs ñu jël ko yóbbu fa. mais boobu na ñoo xam ne interprétation bu bon lañ ci def. Mhm. wala déggin bu bon lañ mhm. mhm. nga nit ku ne eh, niñ ko ngéntee rek lay doxale parce que dafa am nit ñoo xam ne seen xol moo dul nangu lu rafet gis nga am na ñoo xam ne dañuy romb lu rafet rek. xool kër gi mu rafet rek ñu yegg julli ñaari rakk na waaye kii maa ko yéene këram gi waaye am na ñoo xam ne dañuy romb kër gu rafet bu ñu sañoon boroom kër gu du fanaan parce que amuñu kër googu àddina mooy doxe noonu tig nag koo gis muy xastare xasitit la parce que ku am liñ ko mën a xasee toujours day jiital xas pour ñu bañ koo wax xaskat boo gis boo gëstoo biiram xasit la moo tax xasit jarul la topp moo tax moom keroog mu ne ñi nekk ci lu dul loolu nañ leen yaanal yàlla ñu dellu ci baax ti loolu dafa am solo moo tax ñu dañ koy gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko sunu kanam ba ci kanam ak kanam. ba tey ba tey ni ñaa ngi léegi rek nga gis euh, sëñ Modou buso gis nga toogaayam léegi ak lim ci wax ti gis ngeen ci portable yi ñëpp gis nañu whatsapp yeeg yëpp gis nañu waa marché Ocass <laughs> niñ doon taxawee di battre keroog ci suba li may yëm mooy dafa am benn xale boo xam ne dafa joxe géejawaay ba fii 11h pile la yegg si mu defee nekk mu génnee 1000 francs ne 1000 yi yéen bi mu ci am bu ma ko joxe woon nii doole dugg oto day oyof man mais dafa doxi géejawaay ba fii pour moom yëg ne joxe na 1000 francs ba bi mu koy joxe dafay filmer boppam di ko wan seen waa koñ. salaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal tawfiqul ilahiya yàlla sàmmal ñu njaboot gi aral ñu leen bi jaay sayyidul wujud eh, di ñaan yàlla suñu kilifa gi di al imam ratib Alioune Moussa Samba yal na yàlla guddal fanam ndax suñu sak la ndax suñu sak la eh, gannaaw bi ñu doon def collecte bi nag comme li ma ci waxoon rek laa ciy waxaat ndax ba avant mille francs yi ñu koy wax fekk na moom defoon na trente et un millions soixante cinq mille francs yoo xamante ne njëkk nañ ko verse ba mu mat loolu collecte vendredi bi biñ ko defee bi ñu defee suñu calcul waa jamaatu Nour versé nañ leen trente sept millions trente sept millions lañ leen verse diggante samedi bi ba fi ñu toll nii nii tembe ñu ngi woon ak six millions cent soixante seize mille quatre cent bi ñu tolloo foofu Serigne Modou Bousso bi mu ñëwee moom dafa indi cinq cent mille am xaritam bu yor liggéeyukaayam andi un million muy Ablaye Sylla mu nekk un million cinq cent góor gi bi muy ñëw andil na ma euh, deux deux cent soixante mille yoo xamante ne ni dañ ko ko jox mu indi ko kon donc collecte bi mu ngi ñu ngi ñaan yàlla képp koo xamante ne rek bëgg nga ci def li li nga ci war a def soo ñëwee grande mosquée rek incha allahu koo fi fekk dinañ la bindal reçu dinañ la ko jox incha allahu taala mais daal collecte bi noonu la demee euh, di ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla defal tawfiix euh, wax dëgg yàlla euh, liñ ci am ni weesu na suñu njort kon donc ñu ngi sant sénégalais yëpp yëpp yëpp fu jullit mën a nekk rek ak ñu dul jullit sax parce que am na ci ñoo xamante ne sax participer nañ ci te duñu ay jullit te du ñu ay jullit parce que da ngay gis koo romb sax mu ne la joxe naa lii ci néegu yàlla bi te du doon sax jullit kon loolu dañ koy sante yàlla xëy na nag barke yàlla ci làmmiñ wu nekk la koy def waaye ñun gëm nañu ne def na ko ci làmmiñu suñu kilifa di ko ñaanal yàlla rek yàlla na yàlla defal ko tawfiq incha allah. est ah kay puisque puisque puisque soo nee 37 millions déjà ak 6 millions 176 mille 400 day nekk ci 43 mille 176 mille 400 donc euh, loolu loolu déjà soo soo ko booleeg 1 million 500 yi déjà soo ko booleeg 1 million 500 da lay jox 44 millions 676 mille 400 waaw fekk si 31 millions 65 mille yi ñu joxe. kon donc euh, ñu ngi ñaan yàlla daal fi mu nekk ni daal ñun suñu su li ñu li li ñu bëgg yeggaguñ fa parce que cent millions la ñu bëgg te ñu ngi ñaan borom bi mu defal ñu tawféex jàppale suñu kilifa ba baatam bi mu joxee ba Sénégal yi yëpp ñu wër si woy si ko yàlla na yàlla wéral baat boobu ba ñu atteindre li mu bëgg incha allahu taala